képp li dund dal ñeen ñi noonu lay demee léegi virus bii di coronavirus euh, maanaam beesul jëmbi coronavirus ci boppam maanaam bañ découvrir le coronavirus yàgg na mhm. famille virus la parce que euh, ñun ci wàllu systématique bépp mbindeef bu nekk rek dañ ko wutal tur tur boobu ñu koy wutal moom la ñuy wax noor de genre ak nom d'espèce mhm. par exemple ñun nit tey ñu ngi ñu tuddee homo sapiens sapiens mhm. mooy ñëpp ñuy nit rek foofu lañ bokk virus yi tamit noonu leen classé noonu lañ classé yeneen ak yeneen ci biir classement boobu noonu ci virus yi da ci am benn famille bu ñu tuddee famille bokk ci la famille des coronavidés ci boobu dafa bari ay genre yu fa nekk ñeenti genre nga fa ñuy wax alpha bêta gamma ak delta mu bii nga xam ne mooy coronavirus nag bii bokk ci famille bêta corona foofu la bokk famille bêta corona bi yàgg na fi ñëw it nag njëkk fi ñëw it yoon loolu tamit nit ñu bari dañ koy dañ koy bàyyi xel maanaam euh, bu ñu xoolee ci gëstu ci yi gën a mujj rek 2002 2003 ñëwoon na fi Chine bi mu ñëwee jot faa laal quelques personnes ñu ut ay médicaments rek mu daan dem jamono jooju mu ngi jóge woon ci li ñuy wax njugub sóor suli ci la jóge ñëw ci nit ñu daal koy traité mu dem boobu garaawuloon noonu biñ demee ñëwaat na ci Moyen-Orient bi maanaam côté Arabie Saoudite foofu jamono jooju bi mu ñëwee moom itamit jot na faa laal quelques personnes boobu test yi wane woon na ne mi ngi jóge woon ci dromadaire li ñuy wax chameau maanaam giléem ginnaaw bi tamit ñu traité ko mu jóge fi moo tax da ngay dégg ñu naan la SARS CoV maanaam syndrome respiratoire coronavirus bi njëkkoon a ñëw ak bi mujjoon a ñëwaat ñu tuddee ko syndrome bu Moyen-Orient bi mujjee ñëw nag muy coronavirus ba léegi mais comme dafa bees te ñun bu ci bees bu nekk dañ koy différencier ak bu njëkk ba ñu tuddee ko SARS CoV 2 parce que un amoon na bi ñu tuddee ko CoV 2 mu tombeek at mi 2019 ñu tuddee ko Covid 19 loolu mooy indi tur bi donc noonu lañ ko baptisé moom virus boobu noonu léegi nag moom tamit peut-être particularité am mooy. ba fii ñuy wax ak yéen ñii xamuñu ci ban mala la jógee ñëw ci nit loolu mooy particularité bi par rapport ak yu njëkk yi am na mala yu ñu sible woon ba mu feeñee ca Wuhan euh, ci Chine waaye ba léegi nii lu mel ne ay pangolin chauve-souris ay serpent yëpp doon lañ den jéem a wër mais ba léegi amu ci benn test bu wane ne dëgg-dëgg ci ñoom la jógee peut-être loolu mooy question bi nga xam si vite euh, xaw na jaaxal jaam ñi parce que moom d'habitude faaw mu am fu mu jugee bon am na professeur yu bari yoo xam ne développé nañ ci ay thèse yoo xam ne euh, montagne yeeg ak ñeneen ñi nga xam ne moomoon prix Nobel bu yàggul dara rek euh, mi ngi wax ne bi ñu defee séquençage yu virus bi ci boppam gis nañu ne moom bu njëkk ba am nañ ay ressemblance bi mu mujjoon a jaar lu tolloog 76 pour cent waaye lu mat 15 pour yi ci des daanaka ay mbir ci dolleeku la yoo xam ne bokkut ak bu njëkk ba te gis nañ ne lenn li nuróo ko ak virus sida lenn li nuróo na ko ak feebar bi nga xam ne si moom la ñuy wax malaria di paludisme ba tax sax am ñu teg hypothèse ne est nekkul dañoo jël virus bu njëkk ba doon ci def ay manipulation ci laboratoire ngir jéem ci créer ay vaccin lu jëm ci sida yu mel noonu ba finalement mu rëcc infecté ci ñenn ci nit ñi ña nekkoon ci laboratoire ba génn thèse la boo xam ne teg nañ ko ci table bi te nag gisaguñ li ko dindi parce que li tax gisaguñ ko dindi mooy ba fi ñu wax yéen ni gisaguñu benn mala boo xam ne ci la te faw mu am fu mu jaar ñëw ci nit kon bu njëkk ba ak bii lan moo indi différence bi création bu mujj bi lan moo indi bi loolu question la boo xam ne ñu ko teg ci mhm. ne tey bu demoon ba nekk dinañ ne ah kon euh, xañ na euh, science mi ngi dox ñu ngi koy waxee saa su nekk waaye ci ay avancées am parfois day am mhm. mooy léeg-léeg ci jéem a gi ñuy manantu léeg-léeg mu indi ñu ay ngaañ. mooy doon jéem a faj nangam far finalement mu jural la nangam loolu hypothèse la boo xam ne ñu ko fi teg. donc loolu moom mbir la moo xam ne moo feebar bi di corona ñu ànd léegi nag euh, bi mu tàmbalee ca euh, Chine yaakaar naa ravage yi mu fa def ñun ñëpp gis nañ ko euh, tiitaloon ñu bari ñun booba yaakaaroon nañu du ñëw ci ñun jaar na fi Europe diggante bi doo ko yegg si ci ñun waaye ñu xam ci leen mooy ni virus bi dafay soppeeku diggante ba mu tàmbalee ak léegi virus ba tàmbalee woon ca Wuhan ca décembre 2019 ak bi nekk tey ji bokkatul benn. ba ñu lay soppeeku jam bi maanaam ni mu ñëwee day li ñuy tuddee ay mutation ni ma mën a waxee mutation mooy moom mbindeef la moo xam ne comme ñu ñun rek comme ñun la ñu wutee système de défense maanaam heure boo koy wutal ay garab ngir jéem ko éliminer moom itam day jéem wut ay moyens ngir continuer dund di jéem a soppeeku fi nii boo xalaatee lu mel ne siburu ay jamono ni ñu ko daan faje fii ci Sénégal lu mel ne ay niwaakinine dafa dem ba mujj boo naanee niwaakinine boo feebaree doo bi la mais dafa soppeeku ba melatul na meloon ci lañ tàmbalee artémisia bi tey di ko faje donc noonu la demee virus bi tamit soppeeku na maanaam waa IRD ci institut de recherche bi fii ci Dakar rek mhm. seen séquençage yi ñu def te ñoom amuñu sax souche yëpp wax nañu ne ñeenti façon souche yu coronavirus yu bokkul am na ci réew mi ñu nekk di Sénégal yoo xam ne bokkut ak bu njëkk ba départ waaye nag virus bu defee mutation ñaar moo ci maanaam day def mutation bi mu bi mu bi mu bi mu créé waat gën a soxor bu njëkk ba wala mu gën ko faible waaye su mu defee ci tawféex mooy mutation ñoom ñoo gën a faible par ba. loolu tamit gis na te loolu tamit dafa baax nit ñi xam ko moo tax euh, naa mbokk wala xarit xam boo xam ne feebar bi na moom dem na hôpital ba ñëw daan kenn jox ko dara wala diw de feebar bi lañ ko jox mhm. ci lu wér lu am la parce que li ko waral mooy forme mu moins sévère bi ci boppam moo ko dal su ko dalee bu boobaa moom signe maanaam day nekk personne asymptomatique maanaam mañ na bañ a développé sax yenn signes yu grave yi signes yemamaay képp léeg moom mooy mooy ñëw ci moom bu boobaa moom mën naa ba am yenn jafe-jafe yi loolooy waral ñenn ñi sax dafay dem ba du ñu gëm ne sax feebar bi am na parce que dañ naan ah gis nga ki mu daloon finalement gis nga ni mujj te pourtant kuy ngay ñaan yàlla bu dee nga xam ne dal nit ki parfois mën na laa dal yow fekk sa système immunitaire maanaam sa kaaraange yaram toll foo xam ne du la indi problème waaye nga dëkk ak benn mag wala benn mère wala benn nanga bu am feebar moo tax quatorzaine maam jëm laa leen que muy jeex ngay doog a ñëwaat ci sa biir famille ndaxte yow comportement bi nga ci am mën na am keneen du am comportement boobu noonu parce que virus bi euh, ni ñu ko xamee ñun ñëpp dafa am ay récepteurs maanaam bu duggee ci yaram doomu aadama dafa am ay cible dafa am ay mbir yoo xam ne moo ko yitteel am na ay récepteurs yu ñuy wax les ACE2 yooyu ci lay jàpp yooyu dafa am ci poumon doomu aadama Hmm? dafa am tamit ci xol bi da ciy am léegi yooyu bu duggee moom moo ko yitteel moo tax bu duggee rek dafay jaar ci baat bi wàcc intestin bi bu mënee jaar ci voie respiratoire yi wàcc moo ko gënal bu jaaree ci intestin bi tamit dafay jéem a dugg dem ci biir léegi nag bu la suñu borom dimbalee mën naa bañ yegg foofu parce que bu ñu defee traitement bi mun naa bala moo yegg foofu noonu maanaam ñu éliminer ko ba pare fi muy grave nag mooy bu ñu ko bàyyee ba mu yegg foofu ba téye ci xëtër yi ba nit ki tàmbali am ay bu noyyi loolu mooy cas yi ngay faral di dégg ñu ne yóbbu nañu ko hospitalisé ko nangam nangam nangam donc boobaa foofu lay tàmbali di di am manifestation yu mel noonu waaye tamit pour gën a bàyyiloo xel di ci virus bi ni mu ni mu demee virus du bënn yaram dama koy wax ay yoon yoon yu bari virus moom nekkul ne bu ma amoon virus tey mu tege sama loxo bi am naa coronavirus déedéet mën na taq sama yaram fu ko neex taxul mukk rek ma am feebar bi moom faw mu jaar ci porte ouverture yi maanaam ci ubbeeku ubbeekuwaay ci lay jaar dafa jaar sa gémmiñ dafa jaar sa bakkan dafa jaar sa bët maanaam ci ubbeekukaay lay jaar mm-hmm. moo tax ñu insisté ci li ci diine wax naa leen gën a parce que su ma génnee tey ji dem naa marché dem naa fu nekk dem naa nangam am na ay contact ngelaw leeg lépp a ngi ma doon laal virus bi peut-être na taq fenn ci man waaye comme sama loxo yi moo ëpp li muy jëm ci ubbeekukaay yi ñu may wax ne bala mu cee demati naa ko raxas ngir ma éliminer ko parce que moom foofu rek la mën a jàpp dugg li may lekk ak li may nangam lu ma doon ma fexe ko raxas même nuyoo bi sax nii bi li tax ñu di ko bañ mooy bu nekkoon moom mën na la ko wàll waaye boo parce que euh, man bu nekkee ci man wala mu nekk ci keneen su ma dee wax moom ci li muy ànd mooy lii dund ci man liy dund ci man mooy la ndox mi may génne su ma dee noyyi mën naa génne vapeur ndox lay doon su ma dee wax nii tiflit mën na génn ci man tiflit yooyu mën na ci ànd maanaam liy dund ci man lay àndal génn loo tax su may wax ak nit jege gi ma ko jege wala nangam ñu dem wax ne ma boo ma ne takk masque wala mu takk masque moom bu boobaa mën na am du ko wàllante parce que ngelaw lu dem wala bu fekkee mënta nekk na ngeen xaw a soriante tuuti distance yëpp loolu moo loolu moo ko indi ñu ñu di ko wax hmm? léegi boobaa dana leen dimbali ci transmission bi pour mu mën a dem entre bañ a dem entre nit ak entre nit ak nit donc loolu tamit dafa nekk euh, mbir moo xam ne faaw nit ñi di ci bàyyi xel ngir gën a xam dëgg-dëgg nan lañ koy nan lañ koy nan lañ koy moytandikoo hmm. peut-être masque bi tamit euh, bu fekkee nit ki da koy takk bu génnee tamit faaw bu mu nekk n'importe quel masque hmm. parce que li ko waral mooy virus dafa tuuti virus dafa tuuti boo jëloon benn millimètre nga xaaj ko yoon virus ko tuuti kenn mënu ko gis ci bët ndax tuuti kon maay yi gën a tuuti ci li nga yore ci ci ci ci euh, masque bi nga yore mën na cee jaar dugg kon moo tax du n'importe quel masque damay wax ne souvent na nekk tissu continu comme par exemple ni ma yoree mouchoir AGT bii nga xam ne tey nekkul tissu boo xam ne ay fil ñoo ko constitué mais tissu continu la loo xam ne boo xoolee du am bën bën genre tissu bu mel nii mënut a ñàkk ci biir masque bi day am ruban protecteur boo xam ne ruban boobu moo koy protéger exactement ruban protecteur bi du mën a ñàkk ci biir bu fekkoon dama jël benn tissu rek kese moo xam vax la wala bu mën di doon kese kese nga xam ne da ngay gis may yi nii nit ñi li ñuy rombante loolu mënu ko protéger parce que nekkul ci continue yu tuuti yooyu ngay xeeb jarul xeeb parce que moom kenn na ci jaar kon loolu dafa mat a bàyyi xel te dafa mat a bàyyi xel ba ci masque bi tamit euh, ki koy jëfandikoo partie surtout partie bi féete ci biir bu mu ciy faral teg ay loxo parce que loolu mooy nekk en contact ak li nga xam si moom mooy bakkanam kon moom bu koy jàpp na koy jàpp ci ginnaaw bu paree bu koy loolu dafa mat a bàyyi xel loxo yi tamit bu muy faral dem ci masque bi lu bari bari parce que bu fekkee yaa ngi ci bitti doon daw ne mën na laal sa loxo wala nangam te yaa ngi dugal sa loxo ci biir tamit bu yàggee mu indi jafe-jafe bien mel na noo xam ne tàng na tàngoor boo xam ne si tàngoor rek dafa metti boo ci takk masque tamit dafay xaw a yéeme moo tax di ci utaale boo xam ne dina respecter norme yi ba pare bañ a diis dana la ci dimbali dana la mm-hmm. loolu mooy mbir mi nga xam a a